bi si njëkk dafay ñeel mbirum système parrainage bi yëf yi andi nañ say coppite léegi képp ku bëgg a samp sa nënd bokk si yële élection présidentielle war nga am lu tolloog 0,6 jàpp 0,8 pour cent ay baat yu la parrainé daañu samp it ab kuréel boo xam ne ni ñañu say tabb ñoom ñoo war a saytu yooyu la parrainage waxtaan nañu it ba juboo si lu ñeel yenn dogal yoo xam ne ni jëloon nañ ko si élection législative yu atum 2022 bokk na si defub tirage si lu soxal dépôt dossier candidature su weesoo parrainage si citoyen yi parrainage yu élu yi yëf yi yamale nañ ko si téeméer boo jël juróom-ñett yi si ay député yu leen war a parrainel si lu soxal naka njiit yi nekk si gox ya goxaan yi ñoom it war nañu parrainer yile candidat si téeméer boo jël war nañu toll si ñaar fukk leneen a ngi nii loo xam ne dëppoo nañu si mooy caution élection présidentielle yi nee nañ yëfi waru weesu fanweeri million si suñuy koppar sa yooyu la jotaay tamit waxtaane nañ lu ñeel droit civique ak politique yu candidat yi la ñu santaane mooy ñu andi ay coppite si article L283 bu code électoral bu réewu Sénégal yokk si lii di mesure grâce maanaam njéggal bi tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall tudd nañu it yeneen coppite yi ñu nam amal ci article L29 bu code électoral bi le mu di daan yoo xam ni léegi day wéeku kott ci ndodd ñi nga xam ne dañ leen a tëj ndax mbirum crime njaayub sineebar ak it li di luubal alalu réew mi su weesoo cas yi nga xam ne tudd nañu ko ci article L28.3 bu code électoral bu réewu Sénégal si lu soxal nag candidature njiitu réew Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci rapportu synthèse dialogue national bi le nee nañ pôle yeeg waa société yëkkati ne fay kàddu di xam ne ni li ñu war a def mooy sàmm constitution bu réewu Sénégal ponk yi nga xam ne ni jubboowuñu si ba ñuy waxtaan bi di jeexee dafay soxal kuréel gi ñu war a dénk yooyu la élection ku jegeeg waa société civile li ñu sàkku sax mooy ñu samp sa bopp ba koo xam ne ni farewul fenn leneen loo xam ne nii mujjewuñu si déggoo mooy boole fonction wu njiitu réew ba noppi jiite parti ak it dakkal topp gi ñu topp yenn doomu aadama yi ba noppi bàyyi yenn doomu aadama yoo xam ne ni ñoo si kaso yi.